naafila 4 guddi ñeenteel gi ci weeru koor sopp nañ ko ci julli ñeenti rakkan rakkan bu ci nekk mu jàng faatixa benn yoon jàng xul yaa ayyuhal kaafiruun ñetti yoon des na ko bindal tuyaaba yi jaamu yàlla ak junni nit te des na ko jéggal bàkkaaram yépp bala moo jóge fa mu doon jullee xarit yi ku ci bëgg yeneen leeral nga dellu ci xurratu ayni bu Sëriñ Suwaybu bu Mbàkke page